ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet.com tey ñu ngi fii euh, Soumbédioune. Koungheul da ngay xaar suba yaakaar naa ne ay heure moo ci des. ay heure moo ci des incha allah duñ def rek lu dul comme moom nee na day xar géej gi duñu ñëw ñi fiy liggéey di ci daan seen doole di ci ci dundal seen njaboot duñu def rek du ñu ànd ak sama caméraman bi jéey ñu dugg ba ci biir laaj ñi fi nekk ñoom naka lañ gisee Kounkandé ni muy xaree géej gi suba 17h ak entrée 50 000 bi jéey ak nañ dugg xool gars laaj leen lu ñu wax. ñu ngi leen seen taxawaay. waaw ñu gis que ni euh, ay heure moo des Kounkandé ne woon day xar seen géej gii di Soumbédioune en tant que euh, sénégalais yow nga nekk di fi daan doole nan nga gisee loolu. loolu nekk te du nekk day coow rek dara mënu si nekk jullit bu am cër si yàlla sax su la ko waxee waroo ko dégg parce que lu mënul nekk mënul nekk luxuskat la day publicité boppam rek mais mënu ko te demul ba di ko bëgg def. waaye nee na entrée cinquante mille na ko bëgg na ko xaar sept fois. du dëgg day fen man Sidi Sarr maa la wax loolu li mu wax du dëgg manu ko day caaxaan rek. c'est que moom bu waxee lépp xel yi dafa dafa xalaat ni yéen nekk fii di daan seen doole moom bu xaree géej gi yéen fan ngeen jëm. waaye dafa mën nekk loolu du dëgg bu doon dëgg jéejee yàq jéejee yàq kër yi mu randal ka mais du dëgg jullit sax ba am cër si yàlla wax ji waroo ko gëm. lay jaajëfal kaddu rafet na. jërëjëf yéen ñi nga xamee ni yéen a ngi siiwal waaju bon jooju pour nu bàyyi xel si moom xam ne seytaane la ñu mel noonu bare na fi. gannaaw ñu leen di ziar. man leen di fay di leen dalal fii si Soumbédioune di leen wax ne ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw. d'accord Koungheul ay heure moo des nee na suba di day xaar seen géej gi naka nga ko gisee. Koungheul daal si ñëwee dinañ ko dalal si jàmm dinañ ko escorter andi ko. defar ko ay barrière ba kenn du ko déranger nee na day xar géej gi nag géeju maam yàlla bee ngi papam sax bu mu juddoo musul xar géej mu naan doom ñëw naan day xar géej gi dinañ ko bàyyi mu xar géej gi. léegi bu bu ko xaree. ku bu xaree géej gi man ma xaddi man man ma dagg sama kurus man. da ngay xar sept fois euh, ba pare jaar ci dem siin. seen kër sax mënu ko xar nga baam na si saa gu may waaye saa caabam papam sax mënu ko fu xar caabam papam mënu ko xar. dinañ ñëw su ma mais mais naka ngeen ko gisee moom mu bàyyi géej gépp su ah, géeju Soumbédioune. ah xam naa dama xam ne suma Soumbédioune xam nga Soumbédioune tey jii géej gi géej gu mag la soo ne tefes yëpp Soumbédioune moo si gën a mag Soumbédioune moo gën a mag si tefes yi moo jur tefes yëpp nee na nag taawul benn géej bu suma Soumbédioune dinañ ko dalal dinañ ko xaar mu ñëw. yéen ngeen nekk ay ndaw di ci daan seen doole lu yóbbu seen kër bu Koungheul xaree géej gi fan ngeen jëm. dara maa leen ay a xale yi géej mënu ko xar nag gannaaw nag bu leen ñu andil ah, loolu la moo tax xar Sénégal xam nga dafa yomb théorie dañ lay yomb dox dool ay dox dool dañ ko bëggee quoi tey jii man mënoon naa jéggi saa rek mais dafay toj xeer bi sama xam-xam. engrais cent mille loo. parce que Serigne Touba su bëggee entre trois cent mille cinq cent mille dañ koy fay. dañ fay tax waaw mais su ko xarulee. su ko xarulee dinañ. rajo bi 17 heures. 17 heures man 4 heures maa ngi toog. ñu lay ñu lay jaajëf. jaajëf merci waay. Ah, moom daal dafa ñëw daal rek taamu suñu géej gi te géej gi moom ñun moom lañ am moom lañ yaakaar kon bu ñëwee ne suma jum la la yaakaar ñu ngi koy xaar 5 incha allah. mais mais nag bu mais pourquoi moom mu choisir géeju suma jum wala yéen nga xamoo nañ ci dara lu waral loolu. xam lu tax mu choisir géeju suma jum xam nañu suma jum ay noobul ñoo fi dëkk te amuñu benn problème moo tax mu ne géeju suma jum nag bàyyi na fi waxam bàyyi na fi yoof loolu moo tax mu ne da ngay xar fois bu ko neexee jaar fa dem si. mais da ngay xar xaru ko moom suba incha allah dina leer si kàttanu yàlla ñun ñu ngi koy xaar fajar ñu ngi koy xaar incha allah. yéen ngeen nekk ay xale nekk fi seen doole bu gundukandee xaree géej gi yéen fan ngeen jëm. ñun fu ñu jëm bu nga xaree <laughs> ñu dem France ak Espagne rek. Ah, ah, ah, xaree moom dinaa dugg moom. mais grand xar ba pare bu moom moo ne suba incha allah 5 heures kay dina ko dina ko xar ñu ngi koy xar waaye bu ko xarul nag lu mu gis ak ñun la wax day leer. mais kon suba rendez-vous. rendez-vous suba moom incha allah 5 heures ñun ñëpp dinañ dajaloo fi waa Sumba di ko xaar pour mu ñëw. waaw doo ko def doo rek ay kuur ak jaase a ngi fi. dinañ tàppal taati ba mu tàng jër. waaye géej gi moom am na boroom ñun moom ay ay su ndongo rek lañ fi mais na boroom na ñëw rek def fa kéemtaanam ndax yonent yàlla Moussa rek lañ ko wanoon moom lañ fi joxoon kéemtaan ma xar géej kon de moom nag moom am na kéemtaanam boobu na ñëw rek woon ñu kéemtaan googu rek ñuy gis. après moom da xar sept fois ku bëgg a dem siin dem. ah moom koy mën na ko mën na ko def dix fois quinze eh, fois bu ko bëggee na ko def mais ñun géej gi daal ñun moom moom lañ xam ndax ci jën yi la ñuy dund di ci tedd ñun lii mooy suñu teraanga. mais pourquoi mu choisir géej sumb. ah moom looloo ñu jaaxal la xëy na géej sumb jëm la bay da am xëy na fii la suñu borom def may gi kon kan na ñëw may gi kon fii la ne ah a moom dëkk am na géej lu tee defu ko fa. kon may gi fii la nekk na ñëw fii ci may gi. mais yéen ñuy daan seen doole Koungheul bu xaree géej gi yaay booy fan ngeen jëm. li ne ci géej gi mooy suñu taraanga. rendez-vous suba 17h ah. suba 17h la rek. rendez-vous moom suba 17h la fii Koukante bu ñëwee nañu xaral géej gi ñun moom suñu taraanga fii la nekk ci tefes gii. ñun ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi door a dégg fii ku ne day taxaw fii xar géej gi ñun ñu ngi koy door a dégg comme nag moom yàlla moom yàlla moom moo ko mënal boppam ba nee na day xar géej gi. ñun ñu ngi koy xool ba xam fan la ñuy mujj fan lay mujj ak géej gi waaye pour mu taxaw si tefes gi di xar géej gi moom sax dina ko jaaxal li mu wax la waaye moom dina ko jaaxal. moom pourquoi moom mosu waa gis seen géej gi su ma looloo ma jaaxal parce que moom yaakaar naa ne fi mu dëkk géej googu foofu la ko gën a jege bu taamoo sëmbajun ne sëmbajun lay xar bu ñëwee sëmbajun mu ngi koy xaar nitu sëmbajun duñ koy duñ ko xaaruñu ko de borom sëmba jun moo ko xaar moo koy xaar bu duggee si géej gi dina xam ne ne sëmba jun tur la waaye li koy xaar mu si biir géej gi. ba pare moom noonu da koy xaar sept fois. loolu la wax moom dafa wóolu boppam xawma xelam nag moo ko yóbbu waaye li mu wax moom moom day fowee xelam rek waaye moom xam na ne moom du taxaw sax bay xar géej. en tant de famille moom mu day xar géej bu ko xaree yéen fan ngeen jëm. looloo ma jaaxal. parce que ñu day nekk si dëkk bu naqari di du jug di daanu géej gi ñu yaakaar que buñ juddoo ba tey ak suñu njaboot ak suñuy waajur mu ñëw ne da koy xar loolu moom duñ ko bàyyeex kenn dañ koy bàyyeex yàlla mi sàkk géej ba xool nag moom dina laal géej ba kay xar. rendez-vous suba 17h. non rendez-vous suba fii dina toj parce que sànq ba léegi ñu ñaa bi di ko xaar parce que dañu yàkkamti suba. kaaga nee na day xar géej ñu ne ñu ngi koy xaar baleel nañ ko géej bi mu set xalal ko yoon. waaw waleel nañ ko géej gi ba mu set xalal ko yoon xale yu góor yi fan yëpp ñu ngi bale saa yu ñu xale ñu xëyee ñu ngi bale géej gi xalal ko yoon bi su ñëwee na dinañ ko xajal waaw dinañ ko xajal taxaw di ko seetaan duñ ko dóor duñ ko def dara ndax xale ñoom ñëpp waxtaan nañ seen biir waaw dañuy taxaw di ko seetaan nee na xar xaar géej gi ñun loolu la ñuy xaar. pourquoi moom mu ne day def entrée cinquante mille ci loolu. ah moom day wut bës rek day wut bës rek waaw bës lay wut dama yaakaar ne moom lii muy wax nii bës lay wut. waaye géej moom mënu koo xar géej moom ah ñu da yaakaaruñu ko bokk. en tant que yéen ngeen nekk ay soutien de famille comprendre nga léegi ñoom bu ñëwee fi xar géej gi yéen ñi fi nekk di daan seen doole jox seen njaboot yi naka ah, naka ngeen. waaye loolu mënul ta nekk ñun de man ñu man de gëmu ma ko waaw te ñi ko weddi bari na waaw ñu ko weddi bari na ñi ma mag ëpp ma sut ma ay kilifa ñoom ñëpp weddi nañu ko waaw ñun ñu topp ci ginnaaw kilifa yi weddi kilifa yi weddi. ah ñun di dañuy gëm ñun ñun kilifa yi la ñu àndal ndax ñun kenn gëmu ko fi Soumbédioune ba mu daj kenn gëmu ko waaw ndax chaque jour ngeen ngeen boo leen xoolee kii portable yi di ngeen gis si Facebook kii bi yëpp xale góor yi di wax Baye Fall bi ci nekk di wax nee na moom mu koy xaar waaw kuuram nga la taxaw di ko xaar. waaw yéen a ngi pare di ko xaar daal te nee da koy xaar sept fois. xaar waaw am na sunu benn caay bu ñu dëkkal fii sax nee na moom bu ku kànk xaree géej gi moom day peinture asamaan si. ñu gis ne ay heure moo des. mooy suba 17h Kounkané day xar seen géej gi naka ngeen ko gisee. waaw ñu ngi koy xaaral jàmm na di ko dalal ñun waa Sumb ñu xamal lu ñu koy digal mu dox fii ba il ba kaw ndox mi ñu doog a gëm ne géej gi loolu rek lañ koy digal. mais da xaar sept fois jaa ci dem siin. ko xaar incha allah da nga dalal wutal ko mesure barrière bu baax ñu ngi koy xaar ñun ñëpp. waaw pourquoi mu choisir seen géej gi. waaw xëy na dafa neexee xar moo tax xam naa moo tax mu choisir ko. mais ñu ngi koy xaar di ko dalal. léegi ah rendez bu sept heures. incha allah ñu ngi koy xaar defaree ko ay barrière taba laloo ko tapis rouge. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér wóor les minutes